xel yëpp dem ci li nga xam ne di suba teel mooy wax kokoriko daal di yee nit ñi ñu daal di fajaru daal di julli moom dinay dundee lu mel ni que xeet bi ñuy wooyee ay pepp ak yeneen yu demee ne yoo xam léegi ci mbal ci ma la koy fekk sax di koy tasaare bu jógee ci loolu seetu ki nga xam moo di muus mi muus mi am na am na solo lool ci biir kër gi saa yoon ne sipp di ko daq waxaal ci say soxla ni ko Souleymane Faye waxee moom muy dundee xeet li nga xam moo di ay waasintóor ak mbir yoo xam dañ koy tuur ci mbal bu fekkee ni togg nañ ca wàñño ba noppi

wala ki nga xam moo di nag bi léeg léegi sax ki nga xam moo di xar mi sax wala bëy bi ñoom ñëpp ñu nekk ñoo xam ni ngooñ la ñuy dundee di ko daal di lekk def ko ci seen biir boo leen gisee ñu tàmbali ko nag jur yooyu nga xam dañ nekkanteeg ñun ci biir kër gi li nga xam moo di jur yi lu mel ni que ñoomeen nag ay ñoomeen xar dañuy def li nga xam moo di di wéy ci àll bi jóge ci tool bi dem ca tool bële jóge ci dëkk bi dem ca dëkk bee mu nekk loo xam ni ci loo xam ne dafa daal di nomade wala dafay indi terme bi nga xam moom mooy la transhumance transhumance boobu nag buñ ko dee wax mala ya moo taxoon ñu di ko wax waaye le mot transhumance boobu nga xam ni mala ya dañ koy def dem nañ jamono ba nga xam ne dafa dugg si nag ci li nga xam mooy dundunu doomu aadama yi fi mu duggee ci dundinu doomu aadama yi nag mooy ci wàllu politique loolu dinañ ko gën a xóotal waaye fi ni njëkk a taxaw ak yéen mooy dañ leen di wax ni Sénégal vois le politique le Sénégal a indépendance qui est le le président Senghor lu jiitu loolu sax ci wàllu politique dafa amoon kuréel bu ñuy wooyee BDS BDS boo leen ko jéggee moom moo jur parti socialiste mi nga xamni Ibrahim Ibrahima Seydou Ndaw ñu bëri dañ koy faté ki moy jëm ji nga xam mo jëk taxawal le BDS mi nga xamni ñom Senghor ñom Mamadou Dia ak ñu bëri ci seen ay compagnons de la première heure ci loolu la nekkoon di ci yëngatu BDS xam ngeen ni mo jur UPS UPS moo dem ba ci ay jamono jur li nga xam mo di parti socialiste mi nga xamni Senghor mi mo jëk nek président bo xamni moko mandargal ci Sénégal ci 1960. bi demee ba ci biir ñu xool ñu gis ni nag politiciens yi dem nañ ba ci biir ki nga xam moo di président Senghor bëgg a yaatal li nga xam moo di géew bi mu créé quatre courants yoo xam ne ñoo fi amoon maanaam ay libéraux wala ñi nga xam ne ay communistes lañu ak ñeneen ak ñeneen waaye fi ñuy taxaw ki nga xam moo di maître Abdoulaye Wade moom dafa mel ni ku nax nag Senghor fekk ko fi nga xam moo di Mogadiscio ah ni ko nag dama bëgg a créé parti de contribution loolu nag Senghor daal di ko koy may donte ñi mel ni que ñoom Jean Collin ànduñu ci woon bi mu ko bëggee def dañ dem ba ci biir ñun loolu duñ ko nangu ba tax na bi ñu bëggee gàllankoor maître Abdoulaye Wade dañ ko ni da ngay joxe caution

PDS boobu nag moom moo gën a mandargaal xeexam ci politique ci Sénégal ak parti socialiste ci diggante Senghor ak ki nga xam moo di Abdoulaye Wade ci diggante tamit ki nga xam moo di président Abdou Diouf ak ki nga xam moo di maître Abdoulaye Wade Abdou Diouf mi jëloon nguur gi ci 1980 81 kii di Abdoulaye Wade indil ko ko ay jeexi jaax yu métti ci wàllu élection 1983 1988 1993 waaye ci wàllu transhumance boobu parti socialiste ay yoon yoon jéem nañ wàññi doole ki nga xam moo di maître Abdoulaye Wade ba tax na ki nga xam moo di Fara Ndiaye woon nañ ko fi nga xam moo di PDS indi ko fi nga xam moo di parti socialiste ku mel ni Serigne Diop nga xam ni Abdoulaye Wade moo ko yar bu demul ci biir PS tamit waaye liggéey na ak nguuru parti socialiste lu bëri. exemple bi gën a illustrant mooy élection yi nga xam moo amoon ci 2000. 2000 ñëpp xam na ni ki nga xam moo di Ousmane Ngom Abdoulaye Wade moo ko formé politiquement moom tamit nekk juriste bi ñu demee ci 19 mars élection deuxième tour la diggante Abdoulaye Wade ak ki nga xam moo di euh, maître Abdoulaye Wade ak ki nga xam moo di Abdou Diouf xam ngeen ni kii di Ousmane Ngom ak ki nga xam moo di Jean Paul Diaz ñi ngi bokkoon ci convergence 2000 defoon courant yoo xam ne ñu jàppale ki nga xam moo di euh, président Abdou Diouf waaye Abdoulaye Wade moo mujjee gagné le 19 mars ba loolu wéy gis nañ transhumance bi gën a fi nga xam moo di Sénégal am ñu nekkoon parti socialiste ñu menacé leen xoqatal leen ci li nga xam moo di audit xalaat boobu sax am na ñu ni Idrissa Seck moo ko daal di indi képp ko xam da nga bañu ñu auditer la yóbbu la fi nga xam mu ni fa la mbaxana doone ben da ngay fek ci waa PDS ci li nga xam moy sen parti ñu bari ci la ñu ñëw nag fekk si leen bëgguñu ci tudd tunu ñu bëri waaye xam nañ ci li ci gëna illustrant ku melni ni Aïda Mbodj na fi nga xam modi PDS ku melni ni Aïda Diong dem na fi nga xam modi PDS ki nga xam modi Abdoulaye Makhtar jo bu duggul PDS tamit jàppale na Abdoulaye Wade ba 2012 ci walu election ku melni ni Abdourahmane Sow mom tamit fek ci woon na PDS mu melni ni ñep ñew ñëw nañ fekk si leen mais fi gëni taxaw nak ci transhumance boobu mi ngi ci 1900 wala ci 2004 bi nga xamni Idrissa Seck amna na jaxa jaaxa ak Abdoulaye Wade mu dugg kasso genn ci kasso bi créer mouvement bi nga xamni daf ko mujjé def dal di parti tudde ko réew ki nga xamni ni di Omar Sall numéro 2 genn PDS fekk jiko ki tamit nga xamni modi Pape Diouf nekkoon ministre de la pêche jóge fi nga xam modi PDS fekk ko fi nga xam modi di ñu taxawal li nga xam moy sen parti politique waye dem nañ ba 2008 xam ngeen crise bi amoon ki nga xam mooy président Macky Sall nekkoon président de l'Assemblée, assemblée ginnaaw bu mu nekkee premier ministre ñu indil ko jeexi jaaxa ci nguuru Abdoulaye Wade moom tamit ñu génne ko ci PDS am ñu génnee ci fi nga xam moo PDS mooy ki nga xam Moustapha ak ki nga xam moo Mbaye nañu fekki tamit ki nga xam Macky Sall parti APR transhumance bobu nak donc lu wëy la ci Sénégal nek na cosaan ci Sénégal nek na lo xamni habitude la ñukoy def diko def ci légui nag li tax ñukoy def conviction politique mën na tax ki jóge fi dem fële waaye lu ci ëpp tamit day nek ki nek ci pouvoir bi limu yor ci alal limu yor ci fond politique mën na koy neexale ay politiciens ñu bàyyi seen adversaire fekk si ko ci fi nga xamni mom fofu la nek lool nak casse-tête la bo xamni jamono yi mi ngi wéy nag ci digënté Idriss Seck bu réew mi ak président Macky Sall mi nga xamni mom mo ngank

loolu nag nee na Macky Sall moo nekk ci souf parce que la koy gëna a moy mooy Nafissatou Cissé bi nga xamante notaire la le protocole de Rebeuss la tax ñu tax ñu bayyi ki nga xam moo di Idriss Seck digganteem ak Abdoulaye Wade mu am xumto waxtaan bil nek bo xam dañ ko defoon mom moko ko ak maître Ousmane Seye mom jugina fi nga xam moo di réew mi fekk ki nga xam mooy président Macky Sall ci APR mu jox ko poste boo xam dafa daal di doon loolu dafay wëy ba léegi indiwaat coow loo xam ni jàng nañ ci yenn kaay yi ni que Youssou Diagne Youssou Diagne mi soo ko gisee nag moom moo nekkoon premier président de l' assemblée nationale ci nguuru ki nga xam ni moo di Abdoulaye Wade moom nag ngapparu lay milité waaye ba demee ci élection locale mu ñàkk fi nga xam moo di ñu ni les erreurs politiques ça se paye cash moo tax ñu teggi ko foofu moom nag ginnaaw ba fekki woon na ki nga xam moo di Idrissa Seck ci parti réew mi ginnaaw ba nag kii di président Macky Sall woo na Youssou Diagne neexal na ko xamuñu nu mu demee waaye am na waxtaan bu dox ci seen diggante ba taqaliko na ak ki nga xam mooy Idriss sekk bu réew mi transhumé moom tamit ñëw fi nga xam moo di APR mu nekk moo xam mbir moo xam dafay daal di tey xel am na ni nag Idriss sekk moo ko ni woon demal seeti président Macky Sall ngeen waxtaan ci seen biir ngir ñu mën a juboo man ak moom ginnaaw ba comme Macky Sall ne kaay ñu toog Idriss Seck ni ko doo dem mu ne nag wax waxeet boobu duma ci ànd président su ma woowee mu yulif ñëpp man damay dem muy ji ko loolu nag mooy dernière nouvelle bi nga xam ne am na ci diggante Idrissa Seck ak Macky Sall nga xam ni tibbantey tànk ak jëlante jaase ci seen diggante jeexagul waaye dañuy fàttali ni kii nga xam moo di Idrissa Seck Macky Sall toppee na ko mbooro 2000 bi formé premier gouvernement Abdoulaye Wade ki nga xam moo di Macky Sall bok ci won simple agent la won bo xamni ci walu administration la doon yëngatu fi nga xam moo di Petrosen ñu ko bam nek directeur Petrosen waaye dañuy gis ni 2004 bi Idriss Seck di jóge ci premier ministre bi mu nekkon ci nguur Abdoulaye Wade ki di président. Abdoulaye Wade nak dafa jël Macky Sall mi nekkoon ministre de l'Intérieur intérieur daal koy def premier ministre mu melni ni fu Idi dem dafa melni ki nga xam modi Macky moy ñew daal di tok waaye la ci gëna metti moy Idrissa Seck mo taxawoon nous dafa bëgg le 4 quatrième président du Sénégal ci 4 avril la ko 4 ba la ci 2006 2007 loolu la waxoon a ci élection quatrième président bi mujjul nekk moom waaye ki nga xam moo nekkoon wujjam remplacer di jël mi mi nga xam Macky Sall mu mel fu Idrissa Macky Sall la ko di

ku mel ni Sitor Ndour xam ngeen ni moom tamit nekkoon na koo xam ni ba Macky sal di dem Sitor mii dafa jóge woon fi PDS dem fekk ki nga xam moo di Macky sal jóge wat ci Macky sal fekk si wat Abdoulaye wat ci 2012 dem ci biir mu génnaat ci fi nga xam mouvement boo xam élan la parti politique transhumance la xam toujours ci li nga xam moo politique bi politiciens yi di def xaalis moo intérêt moo def wala gëm seen conviction loolu dañ leen bàyyi ngeen xalaat ci loolu As Plus di wax dox bi ci